wa tuwafiya laylata sulasa'i ci guddeeg talaata jooje la ko sunu boroom la yàlla dogal mu wuyu sunu borom moom mamorante sëli wa umila ñu yóbbu ko ilaa deqale ci dëkk bu ñuy wax deqale wa xabruhu xabroom ba unaalika ma nga foofe ca deqale yuzaaru des na ko ziar waxat surtuhoo te man mii nga xam ne may sëriñ Mouhamadou Lamine Diop na mi nga xam ne man ngay jàng sa téere siyaare naa ko fa lillahi alhamdu cant gi amee ci lool nag ñeel na yàlla su ma la ma tuwu fiya topp ba nga xamee ne sunu borom dogal na ma morante sëli toxu jëm ca yërmandeem Maamor Anta Sali nga xam ne waaliduhu moo nekkoon wéy juru Sëriñ Tuuba wa umila te ñu yóbbu ko ilaa deqale ca deqale bi daalin ci deel muxmali goog amut tomb mu maalin goog dee sa wengal maska ga di ko wooyee de waxaafin ak xaaf saakinin goog dañ koo sukoon xaaf goo xam ne amula ab dañ koo sukkoon maskub niik mooy maskoron moom la ñu bindee deq bind ko ci deel ak xaaf suma laamin topp geneen laam goo xam ne mu maalin be sa wengal masque ga di ko wooyee le masque gu ñu wengal mooy dangay oyofal njàngin wa au nga wax dëq li nga wax deq le mooy mu maalin mooy masque gu ñu wengal kon deel ga dañ koy wengal wax de au nga wax di laam nga dañ koy wengal wax le au nga wax li muy deq le mu ne deqale moomu nag xaryatun ab dëkk la min kokki ca dëkki kokki ya dëkk ya wër kokki deqale ci la bokk fi naa iyati mbaakol ca dëkk yu ñuy wax mbaakol maanaam aw tund wu mag wu ñuy wax mbaakol dafa am deqaleek jajjak sugee sugeerak yooya fa la ñu ne kon ca tundu mbaakol ba loola amee sëriñ Tuuba saara dox na fi man ànd ña nga xam ne saara ña ngay dox maahoo ànd woy juróom wa li tas yi ngir gunge ko ca armeel ya kon mbooloo ma nga xam ne ñoo yóbbu Maam Mor Anta Sali Mbàkke Kajoor di dem deqale te diggante ba di juróom benn kilomètre Sëriñ Tuuba daa bokkoon ca mbooloo ma di dox booba mi ngi ci ñaar fukki at ak ñeent mu ne ma ngay dox moom Sëriñ Tuuba ànd ak mbooloo ma allah xadamay hi ci ay tànki boppam ci biir dox googa mbooloo may dox di yóbbu Maam Mor Sali nag wa rubbama yaxridu lahu farisun mu ne bari na koo xam ne day war aw fasam ñëw ba dend ak sëriñ Tuuba ne ko am waral ci saa fas wi ma wàcc tànku bu ko joxee fas wi an yarkaba ngir sëriñ Tuuba war ca farasowoo ca kaw fas wa ngir yërëm sëriñ Tuuba ci dox gi ak cër bi ñu jox sëriñ Tuuba war ma jiñ ko jox tax nit ña di ko defal noona ca seeni fas waaye rek ku ñëw wax ko loolu fa yàqoolu yasru birij laya ahabu ilaya sëñ tubaa dalay tontu ne la dox ak samay tànk daal moom laa gën a bëgg ci gunge gii may gunge saa baay kon ña ko gaaral seeni fas yépp ngir mu war ca sëriñ tubaa da leen caa sant daldi leen dogal ngant ca loola mu ne ginnaaw nag biñ ko robee ca deqale fa lama ijtamaha ahlul baladi ba waa dëkk ba bépp dajaloo jamaatan nekk na mbooloo moo xam ne lam yuux hadu lam yuux hadu mii ne ko ci rob ndax nit ñu bari ndax kii nga xam ne dafay jóge day nit ku mag dima ma morante sëli la ci mbooloo kenn mësu koo gis misluha mbooloo mu baree noona mësta mu ne ba ñu dajee xaddamoo jiital nañu ñoom mbooloo ma li salawaati li salaati ngir jullee ga jiital nañu ngir mu juddee mu jullee alal janaasati ca tàdd ga digal nañu ku jiite julli ga ñu di ko wax sëriñ Tayba sëriñ Tayba nag moom lañu gën a xam ci Muhammadu Ndumbe Maar Sill aw dëgg-dëgg mooy Muhammadu ndumbe maar sill waaye nag ci sëriñ Tayba lañ ko gën a miine mu ne al aati sikruhoo fii baabi sahaadaati aw turam nag dinga ko dégg lu bari ci bunt yi nga xam ne des cay seede di ca wax jëmale ci sëriñ Tuuba saadatil kubra yi dinañu tudd bu bari lu bari lool jëmu jooju di sëriñ Mouhamadou Ndumbe Mar Sill mu ne kooku booy jàng waxtaan yi nga xam ne dañ cay seede li li mu mu taari jami lahu dañ cay seede Sëriñ Tuubaa mii ñuy waxtaane ay jaar jaaram turu Sëriñ Tayba moom da cay dañ ko cay gis bu baax a baax a baax falama faraxoo ba nga xamee ne rob nañ ba noppi jullee ba rob farama faraxoo mina salaati alayhi bañ ko jullee